fa tabaarakallaahu ñetteelu tomb bi mooy diine moo ñu takkee moo ñu boole te diine ji moo cosaan li cëpp luñ ci teg dañ ko cee teg ngir bëgg yàlla ngir bëgg a jege yàlla am tiyaabo euh, tariqa mënta baax te diine ji baaxul balaa ngay nekk euh, nitu tariqa bu baax dangay ngay nekk nitu diine bu baax di pratiquer diine kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te diine ji ñaata yoon lañ ko laal kenn marché wul kenn jooyulu ko la Cheikh Omar waxoon ne lépp loo xam ne dee na am na ñu koy jooy ba mu des diine diine yàlla ji moom nit ñi dañ koy rey te kenn du jooy saaga nañ fi ti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nit wax na yonti bi gënuma baay gënuma ndey kenn marché wul alquran dem nañ ba ne création la asaatul awwalina déggoo kenn marche te nag ah diine bu buñ ko ñongalut mënuñoo ñongal tariqa mukk ndax tariqa xam nga li mel mi ngi mel ni kii seulement diine mooy mbubb mu mag mi seulement kenn du ko demee xew diine ji nag mooy mbubb mu mag mi kon nag nañ gën a sàmmwaat suñ diine ña ñag suñ diine kon Euh, diine gi mooy baax baaxal tariqa nitu diine mooy euh, doon nitu diine door a doon nikk tarika kon nañ gën a protéger diine gi bu ko defee diine gi mooy protéger tariqa bi waaye bu ñu bëggee aar tariqa yi rek waaye ak suñ nitu diine yi waaye buñ dalee ci kaw diine kenn du wax kenn du buñ dalee ci yonent yàlla Muhammad mi nga xamee ne nii mbooleem kii kilifa ak diine da nga ne man jaamam laa mbindaanam laa te buñ daalee yonent bi kenn du marché kenn du ko naqarlu kon il faut da ñu delloo war xel wane ne nit ñi léegi dañoo jàng dañoo am xam-xam manipulation yu baree bari du dem fenn ndax nit ñi jàng nañ am nañ xam-xam te ñu ngi suivre actualité ma riirandoo daanaka bëreetul kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yi laa waxoon naa ko leeralal askan wi jullit ñi di jéggalu kàddu yi lépp loo xamante ni juum naa ko ah ngeen jéggal ma ko lu jub yàlla la wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wahil unib wa axir daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu